ñoom bani wax ya musa lan nasbira ñun day duñu muñ ala taamin ci ñam wahidin bay ben rek fadu na nga ñaan lana ñeel ñu rabbaka sa borom yuxeju lana mu gennel ñu mimma ci la nga xamne tun bitu dana ko sax ala du suuf ñun dal legi sof nañu yap ak yap rek nak ak nak rek legi dal ñun li ñu bëgg nako genné lañu minon min baqliha ci pulloox xam ngeen bananku ñambi wa qisaayiha ak iñaam ya moom la sama mbokk gina yi di tuddee jaabare pël yi moom la ñu tuddee jaabare wa fuumiha ak laaj wa adasiha ak lanti lanti dafa xaw a mel ni ñebbe waaye dafa tàppandaar wa soble sobley ñu ne li yàlla di andi ñoom soxlaatuñ ko lii lañu ñu soxla maa ngi jéggalu ci fii ci benn leeral laaj dañu naan dafa araam araamul de yonent dafa ne képp ku ànd ak xetu laaj na nga sori jàkka yi ku ànd ak xet bu ñaaw na nga sori jàkka yi ngir malaaykatu rahma yi nekk ci biir jàkka yi ak julli di waaye taxul laaj araam la laaj ci boppam dana dana faj feebaru lox kuy lox bañ loxam bañ a taxaw rek laaj dana ko faj laaj dana ko faj diwam tamit diwu laaj yéen ngi koy dégg lii ñuy tuddee kii feebar bi tere nit lekk suukar jabet laaj a dindi lool ci doomi aadama bu koy faral di lekk lu bari ndax li koy waral dafa am lu nekk ci biir doomi aadama ñu ko tuddee pancréas ci biir doomi aadama dafay génne benn xeetu liquide benn xeetu ndox di ko sotti ci lekk mu koy nal am na lu olof di tuddee dëmbeen dëmbeen mooy kilia dëmbeen mooy li ñu tuddee rein yéen ñu jàng tubaab olof di ko tuddee dëmbeen dafay segg li ci ëpp ci xorom mu dindi ko li ci ëpp ci suukar mu dindi ko bu demee nag ba dana am lu dikkee ni nga doon na ko ci sa baay wala nga doon na ko sa yaay wala ngay lekk suukar bu ëpp day dem ba dafay fatt tame googale daf koy yàq bu ko yàqee na dootu mën a génne liquide boobale di dindi suukar mu wéy nag ci sa deret bu yegg ci xol nag du gën ci doomi aadama boo gaañoo dootul wér ndax li ko doon wérloo amatul ci biir deret bi ñu ne borom dafa ànd ak feebaru jabet waaye laaj daf koy faj moo tax laaj araamul de déedéet dañu ne ko ànd ak xetam na nga sori jàkka yi waaye neewul ko ko lekk bul dem ci jàkka yi waxuñ loolu de mooy araab yi ñu ngi ko def suum waaye arab bu njëkk ñu ngi ko tudde fuum dégg nañ ko làkk dafay toxu dafa mel ni ñun fii dañu naan summa boo demee libi mënuñoo ne summa tumma la ñuy wax ñun fii dañu ne ja ja allahu jalilun boo demee Égypte ñoom galilun la ñu galil mënuñoo wax ja waaye jàlli gaa la ñuy wax boo demee lu mel ni Mauritanie mënuñoo wax fa naari gànnaar mënut a fa vë la vë lii dafay am ci biir askan moo tax ni ko alquran àndee fii ne fuum am na ñu ko dee tuum waaye lépp benn bi rek la dégg nañ kon mbir maa ngi noonu la